dantan dama dantan na la yàlla fay mbayang yàlla mënu woon dafa leen lu dul lii parce que gis nga d'habitude samay mbir day xaw a dëgër paren saay comme ni ko xakk waxee cat da siy topp mais lii bi ma la soxlaa numéro bi ndeysaan bi ma soxlaa numéro bi dem na sax ci Facebook maa ngi koy jéglu bu baax a baax waaye nag il fallait que ma indi témoignage bi nga xamante ni dama koy def ci kii parce que dama ko boole ak moom mu amoon tumeur mais macha allah bi mu demee un mois après ñu dem xool yéen a ko déggal sa bopp euh, docteur yi bi ñu ko xoolee gisatuñ ci benn jàngoro euh, mu doon nag mbir mu doy waar moo xamante ni ginaar lañ koy booleel. <laughs> ginaar gi mais ñaxaabe bi muy àndal aussi ñaxaabe nit ñi wër nañ wër naa ko ba sonn man. ba sonn maanaam xam nga garab yooyu ñaxaabe mooy lan. Eh, ñaxaabe maanaam eh, garab la boo xamee ne eh, souvent pël yi ñoo ko ëpp lañ koy xam ndax yàlla def na bi ñu nekk Casamance. Mhm. dafay bëri lool ci àll bi. Mhm, mhm. moo tax daanaka bu fekkee olof ñi pour ñu xam ko problème la moo tax lu ci bëri. ñun ñoo koy wut defal loolu ci war ñu defal loolu. waaw moo tax ginaar gi damay wax ne gis nga soxna Mbaye. feebar yi ngay gis ci doomu aadama yi. mu bëri bëri na yoo xamee ne Euh, rab moo koy def muy sayaatiin mm. waaw muy saytaan yoo xamee ni mm. dañuy dëkk dañuy dëkk doomu aadama yi chaque jour di ko yàqal mm. ba di ko defal ay paralysé wala yenn feebar yi ngi ay cancer rek yooyu yëpp moo ko moo tax ginaar gis nga ginaar gi bépp feebar boo xamee ne am nga ko bu dul feebaru dee ginaar gi la koy saafara ginaaru ordinaire ginaaru ordinaire gi mm-hmm. moo tax yàlla def na képp kuñ ko jox maanaam da ngay sant ba lépp lu nekkoon ci yow dafay dañ. nga supp ko rek. waaw <laughs> du am saf safal du am dara du am dara <laughs> jël sa ñaxaabe rek ne ci fàtt ci biir. loolu moo tax. <laughs> léegi ma commencé faj. a xam. waaw ah, noonu la noonu la loolu moom daanaka wax sant yàlla bu baax. alhamdulilah tey tey tey santaat yàlla bu baax a baax. ci mm. loolu ndax mm. ñaare nit ki nga xamee ne. Mm. Euh, maanaam nit sax bu la bu la nit woowee. waaw di sant. walaay sa xol day sedd loo sax. bilaay maanaam nga defal ko dara mu ñëw di sant. dëgg la sa xol day sedd ba tax na sant ba jooy ay mbokkam sant ba jooy. dëgg ndax euh, gis Euh, dafa doy waar. Mhm. mbir yi ci nekk dafa doy waar. am na solo santaat yàlla am na solo gis nga ñu ngi may signaler temps bi mi ngi jeex maa ngi gërëm bu baax a baax sama réalisatrice. Mhm. mais bëggoon naa nga ñëwal ma ci néew kattan néew kattan gis naa sunguf néew kattan gis naa ren ndax dafa am ay sarax yoo xamee ne mm. maanaam ñëpp mën nañ ko def waaw mais du am na ci yeneen yoo xamee ne du ñëpp ko mën a def du mm-hmm. allah te torturer nit ñi itam taxul nga woo leen ki sa kër mm-hmm. bien que sax da ngay niveauté li nga xamante ni moom ngay jël mm-hmm. ma xam ko bu baax macha allah ma bàyyi la nga tàggoog mbokki téléspectateurs yi tàggoo boo xamante ni dem dellu siwaat lay doon sous peu de temps parce que man maa ma <laughs> da'waana anil alhamdulillahi rabbil alamin mm, alhamdulilah ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax mm-hmm. moom Hakim Diop li ma leen wax ne leen li ma ko nawee rek mooy mm-hmm. téléspectateurs yi dañ ma ñor te képp koo xamante ni da nga leen di fitnaal wax dëgg yàlla bu ma lay dalal du ma sawar mm-hmm. mais képp koo xamante ni dalal na ah, ah, ah, woo na ko rek fitnaalu la benn yoon ca na muy jëflanteeg yow waaye itam dina ci def kéemtalaayal kàttanam itam ba sunu borom eh, xëy na xol bu làbbee tax sunu borom di ko nangu lu baree baree baree baree bari te it nag bu nu amee soxla mu jóg bu ñu ko yebalee ndaw mu jëflanteeg moom kon dañ koy jaajëfal bu baax a baax ngeen am ko 77 366 46 36 77 366 46 36 77 itam 091 77 26 wala 77 784 03 38 numéro yaa ngi noonu ma leen di gërëm di leen sant gërëm bu baax a baax nag sama njaboot gi nga xamante ni tey euh, saag bi waroon naa ko mën a génne ñoo ma ko indil jéem naa triandement ne teg ko sama wet waaye mu def ma ay plan yoo xamante ni euh, Ami Collé Ibrahima Mamadou macha allah la ñuy nekkoon Espagne yëpp la ñu gàddu indil ma yal na yàlla def leen mag yu lislaam mag yu am ñam euh, mag yu am njariñ yitam ndax xam naa ne bu ñu amee njariñ rek ma noppalu kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fi amaanillah jaa ngeen ci kër gee